confirmé la pour alxamis waxtu bi may ñëw seti sëriñ bi dama faa bëgg a naan see café mujj affaire bi nag am nu mu def si man ma woo ma woo sëñ bi waxoo ko damaa mujj sax ñëw ba fii wax ko sëñ bi donc ah Boubacar dina la seet si de mu ne ma mu ne ko waaw pare mu ne ma baax na démb tamit mu woowaat mu waxaat ma ko ne ma su ma xëyee sa alxamis naa ñëw sa bureau bu ngoonee ñu ànd ñëw ci sëriñ bi mu xëyaat mu woowaatal ma boppam ne ma maa ngi toll si péage bi si jëm si si yow bi mu agsee si man ñu nekk suñu yittee ba ngoon gi mu ne ma maa ngi maa ngi waaj pour ñëwaat kon yéene bi mu bi mu amoon yéene boobu maanaam lu jëf na ko jëf na ko dëggal na ko waaw yéene boobu dafa nekk dafa nekk ci moom ndax dafa am ci circonstance bu ñu xamante ma ak moom muy cadre liggéey bi ñu sekk ñu xamante si mu dem ñëw ma am lu ma gis ci moom ma ne ko ah Boubacar man de amoon naa benn yitte mooy yitte boo xamante ni ci kër Sëñ Tuubaa gi mu ne ma ban yitte la ma waxoo ko mu ne ma dimanche incha allah lu ma jàppoon na ko lu ma jàppoon naa ko bàyyi yow it loo jàpp na ko bàyyi te nga ñëw dakaar fekk ma fa ma ànd ak maam Cheikh mi ak Baylaat ak Ablaye Bamba Diop waxuñu sëñ bi dara ndax dama jàng ci sëriñ bi ni sëñ bi de lépp loo koy wax na fekk mu sotti ba noppi bi ma ñëwee ñu dem ñu gis sëñ koso ak moom ñu toog ñu waxtaan ak sañ Koso moom ci boobu mu àggale soxla bi sëñ Koso ñu leeral ko liggéey yi sañ asan sëñ falu joxoon sëñ Assane mu rafetlu ko ñu waxtaan si mu ne loolu yéex gi dégg moo tax sottiwul waaye nañ jàpp ni sotti na Boubacar mu ngi toog loolu la wax mu ne Boubacar kese bu ma ko waxoon dinaa dinaa ci taxaw waaye su ma jógee fii naa dem Touba waxtaan ceeg sëñ Mountakha noonu moom bàyyiwuñu de. deux jours yu jot wala ñetti fan yu jot mu woote ne ma ah sëñ bi de mu ngi si mbir mi di ma leeralal di ma leeralal di dégganteeg maam Cheikh di dégganteeg Baylaat di dégganteeg Ablaye Bamba bu bis mu woo ma ne ma sëñ bi nee na bis sàngam ngeen ñëw Touba gisanteeg sëñ mun daxa ba pare ci teggin gi mu wax ma ne ma am naa yaakaar ni loolu sotti na bi ñu àggee suñ ko sot daal ñu defal ñu ay teraanga. wax ñu ne wax na loolu sëñ bi waaye sëñ bi nee na loolu teg na ko ci loxoom sëñ koso am lum ñu boole ñu nekk di ca dox ba loola ba kër sëñ Touba googu ci Touba tey ji waxatuñu ko waaye leneen lañuy wax te yàllaa ak jëmmam ji moo tax loolu am waaye damaa jàpp ni sëñ Assane moo koy liggéeyloo ci kër gi moo tax mu jaare ci moom ba yàlla def loolu sotti loolu aussi ma doon leen ko doo leen ko seedeel yéen ndax ay xaritam ngeen waaw xam ni nit kii bu dee def lu baax du ko waaj waaye bu dee leneen la mën na ko waxtaane waaye moom waaju ko sax yitteel na ko def ba yàlla def loola sotti kon tey jii bu amee yéene ndax xam naa dem na ba moom mënul toog te gisantewul ak sëñ <laughs> loolu moo tax mu mu ne xaaral ma ñëw gisante ak sëñ bi nekku nag lu mu def pour pour ñu wax ko de waaye ñun ñii mu ko defal ñoo xam dayo dayo bi ak fi mu toll ci famille bi waaw ndax lu rëy la si ñun li mu def ak a rëy yàggal la te la yàggal fi njaboot gépp tey nag ñu ngi ñëw ci barab bi waaye barab bu ñu miin ca baawoon lañ ñëw ñëw ci jëmm joo xam ni it euh, donte sunu jëmm yi li ñuy lot lot lot xëy na lot gee tax miinante wu jëmm ji waaye miin nañ jëmm ji ci keppaaru nit ku baax di sunu lépp muy Serigne Saliou Touré ñu ñu xam la ci keppaaram xam la it fi mu fonk gi am ci yow ak ni ko fonkee ak cër bi mu la bàyyeel ak cër bi nga ko jox ngir jëmmi Serigne Touba ji nga xam ni moom la fi nekkee tey yow it nga ci cër bu mag. mu xam ko it ngeen àndoon ko ci baawoon boobu ay gone lañu di la siyaar bu baax a baax di siyaar mbooleem njaboot gi yëpp euh, sunu tànk yi tey nag dañoo ñoo gunge si sunu xarit sunu wëllëre koo xam ni bi ñuy ànd fukki at ak nangam lañu am ba sunu jonn yàlla tey dara ñaawut lépp di rafet lépp lu mu ne ma ci ak moom lépp lu ne mu ànd ci ak man sañu ko bañal dara. waaye moom it maa bañal dara ngir kolli rek démb ga mu ñëw si siyaar si la nag bi ma ko waxee rek ma bëgg ci lool nga xam ni mi ngi siyaar yi koo xam ni it maam doomi xolu sëñ falu la sànq ba de bi ma toogee damay xool photo sëñ Modou Bousso bi di la xool rek may may nattale nduróo gi ak benn léegi te loolu kon cër la boo xam ni euh, wajuru tedd ba amoon na ko ci sëñ falu nga am ko ci moom it cërub sëñ Fallu it daagu ci kër gi kon loolu santaan nañ ci yàlla bu baax a baax a baax di bég ci sa njaboot gu tedd gi nga xam ne it seen jikko ak seen melokaan moo leen may ñu mën a jox jaxasoo ku ne ndax nit mën naa am judd gu rëy gu ne waaye jikko mën na yàq juddu ndax jikko mooy lépp ku ko rafet la rafet la lépp ku ko ñaawle ñaawle lépp innama bu'istu li utam ma makaarimal axlaaq kon jikko lu màgg la mooy diine mooy lislaam waaye seen jikko yi tedd yi ñu lango rango rango mu ne ci ñoom te ñu te nampataloo ko ci sa jëmm ju baax ji moo waral ku ñu gis ku baax mën a jaxasoo moom ba lii lépp tey jotaay bi li ko waral ak li ko sookee ak li mu jur lépp mën a ne. ñu lay siyaar bu baax a baax di siyaar suñu wajur bu jigéen bi ci ginnaaw ah, di sàkku ci yow rek ci cër bi nga xam ne suñ faral def na ko ci barab bi mu tudd ko ndindi def fi falak foll it sunu waay bopp jii di Boubacar lii di ko xam ni bi mu waree jàng jàng na fi mu war a juddoo juddoo na fa ndax yaa ngi wax léegi ci sunu maam ju tedd ga Cerno Souleymane Baal mi nga xam ni la révolution torodo moo ko incarné ci Sénégal démb tey soog a ñëw xeex fi buumu jaam ba mu dog diggante euh, tukulóor ya ak naar ya kon moom it mu nekk ci lancé boobu rek di xeexal dëgg ngir mabbal ay kàcc loolu rek moo ko tax a jóg nga xam ni li xew ci jamono ji nga xam ni baraana kuy dugg ci politique wala ci social intérêt personnel moo la ci tax a jóg waaye moom loolu bokk ca ndax koo xam ni yaa ngi wut li ngay wut amagoo ko di yëkkati sa alal di investir ci ay hôpital ak i ambulance ak di def social di dimbale kon kooku wane nga yoon wi nga xam ni la nga nàmpatal muy say cosaanu démb li nga yootu boo jotee it dëgg woon démb ak barki démb rek ngay dekkal tegaat ko ci aw yoon kon ñu ngi sàkku ci yow nga ñaanalu ñu ko bu baax a baax ba ay xemmem téefam ak i mébétam sunu borom teg ko ci ay loxoom ba mu mën a liggéeyal askanam ñu ngi ko bëggee dañ ne woon kon nañ ci joxe sunu kàddu rek sant bu baax tey gërëm di di bëgg jëmm ji lool di namm jëmm ji lool. ca ndax bi bi ñuy gone lool nag lañ lañ min jëmm ji maa ngi koy wax léegi ci keppaaru Serigne Saliou Touré. yi am léegi. ñun boo xoolee ba ñuy commencé suñu engagement politique baaba mi nga xam ne xam na si dara ba ñu duggee Thiès grand Ndiaye Mamadou njaay mi dalal ñu ak Kaaw ak Basirou Sall li ñu njëkk def mooy ziare sëñ si kër euh, kër euh, kër diine yi parce que dafa am benn góor bu ma mës a waxal ma ne ko waaye maa ngi doo a jóge France ma jàngee ba pare daf fay année ñibbisi ma ne ko daal fan yi daal business bi doxul daal mu ne ma ñaata nit ñoo dem France ma ne ko ah mu ne ma ñaata nit ñoo ñibbisi si melokaan bu leen neex ma ne ko ah xaw ma nag de ma ne ko am na ñu fa yàqoo am ñoo xam ne seen jikko changé na fa mu ne ma yaru daara bi nekk ci yow moo tax ba nga demee per fàttewu fi nga jóge mu ne ma nag melokaan gi nga mel te jàng gi nga jàng diplôme yi nga am sante ko yàlla li si des nag wërsëg la wërsëg moom yàlla moo ko bind si nit donc loolu ñu koy sant yàlla bu baax moo tax moo tax ñu wekk sëriñ si xam ne tamit li li xew léegi ci jamono bu ñu leen delloo place bi ngeen am ci société bi bi ngeen am ci askan wi ak yar bi nga xam ne képp ku fi baax yaru diine moo la baaxal loolu bu ñu leen delloo seen place nit yi delluwaat ci xëy na li ñuy li ñuy coono ñuy daj ci jamono juñ toll nii ak jafe-jafe yi àdduna xëy na aussi dina wàññeeku léegi nag ma ànd fekk nag sama sama sama xaadim ba may xamante ak moom xam naa ne xëy na fàtt fàttaliwul li mu soloon waaye boobu ñu ngi def sixième annexe Malick Sy damaa dugg si école bi xam booy doogu ñëw doo xam fa sa classe féete ma ma dajeeg moom mu sol bàyyilaat bu mag ak ak maxtume comme fàllu rek ma ne ko mais sa man classe kii laa jëm sixième A DMC mu ne ma nañ dem man fa laa jëm noonu lañ xamante waaw boobu mu ngi sol bàyyilaat ak maxtume daanaka moom moo ma yóbbu ba ci classe ba <laughs> boobu léegi nag yàlla def na xëy na daa nañ gëj gisante mais su mosuñoo tàggoo waaw baaba nag moom sama xarit la sama ami d'enfance la di ñaan yàlla aussi euh, xam naa du ma guddal wax ji parce que li ñu fi wax wax dëgg yàlla ñun ay mbokk lañ ñun ñëpp benn lañ euh, jaxasoo nañ wax dëgg yàlla di ñaan yàlla aussi sëñ bi li mu leen defal Touba euh, mu mu gën a kii daal kër gi gaaw taxaw waaw liggéey bi gën a liggéey bi gën a ñaŋ ba pare sëñ bi aussi yàlla yokk santé bi yokk kàttan bi waaw ñun aussi Thiès gi ñu bokk tamit li ñuy bébé ci wàllu politique ak wàllu développement yàlla may ñu si ndam kuy politique nag moom pal ngay wut pal pal ngay ñaan di ñu ñaan yàlla aussi ndomb tànk bu ñu fi mënte am yàlla def mu doon loo xam ne lu ñu mën a téye la te mu doon loo xam ne du doon suñu njëriñ ñun kese ak ak ñi ñu jege mu doon njëriñu askan wi yëpp lii dama benn góor moo naan boo duggee politique di nga xam fooy duggee waaye doo xam fooy génne waaw moo tax tamit kenn du ne lii laa bëgg a doon waaye ñaan nañ yàlla te yàlla defal def nañ ci condition yoo xam ne wàllu xam-xam wàllu jàng luñ mënti jox jomb ñu ko téye te duñ ci ruus ci wàllu jàng xëy na ci wàllu jikko it moo tax tamit am nañu yaakaar ci ñaan yi ngeen fi ñaan am nañu yaakaar aussi yàlla moo moo jël suñuy tànk gëré ñu ba ñegg si fii di di ko sant yàlla bu baax a baax a baax di ko sante tamit ñi ko sabab mooy Ibrahima bi Ibrahima moom daanaka moom it ba may dugg Thiès mbokk si ñi ma ñi ma njëkk ñi ma njëkk ñi après nag politique bi dem na ba ñu gëjoon gisante nag mais kanam ngi moom mosul changé yàlla def ci moom leer gi mu def ci moom waaw moom moom ñu ngi koy sant ko gërëm di ñaan yàlla aussi mu yokk santeem euh, def ko si njaboot gi def ko si si jullit ñëpp waaw donc loolu daal laa bëggoon wax sëñ bi di di di di di leen di leen di leen jaajëfal bu baax ci teraanga ji kàddu gi di ñaan yàlla aussi ngeen ngeen yokk ñu ñaan waaw yàlla yàlla dëgëral taxawaay bi si njaboot gi indi fi barke indi fi santé indi fi xéewal waaw ñun ñëpp ñu bokk. du ma ko laal kenn waaye xam naa ne yaa ngi ñëw te amuñu teraanga ju jëpp lu jógee sëñ Tuubaa moo tax mën nañ ko génn laal la ko ba nga ñëw waaw man Ibrahima fee Ibrahima ñëw déedéet fii lay ñëw toog fii <laughs> kon lii ñu ngi sant bu baax a baax sant sa sa wëllëre yi sa xarit yi kaanal yépp léegi nga xam suñu ko sedd na ki ki moom sama rakk la moom. Mm-hmm. moom noo bokk bàyyi waaw sama rakk la moom. wax dëgg yàlla yàlla na yàlla musal la te sàmm leen ba barke sëñ Fall ndax àdduna dafa dafa dafa dafa doy waar dafa tëradi lool waaw waaye daal li ne ñaan mooy yàlla musal la ak ñi nga àndal ñëpp ak nun ñii saa borom sàmm nu ba suñu yéene sëñ Tuubaa lépp saa borom yegale ko ak lislaam bi waaw lii waaw bëgg nañ lool wax dëgg yàlla waaw Ibrahima bëgg naa de naa lool barke sëñ fii kat man ku fekk rek man te ñu fekk nag bari na waaye comme fekk rek dinaa bég ndax danaa xam ne lépp looy wut danga ko am ndax sëñ Fallou ko wax ne ko képp ko xam ne wut du ko am ndax bii néeg bi noppee néeg bi na waa sëñ si far góor ñoo ko defar dem sëñ Fallou de la la def lu noppi na néeg bu noppi na nee na mu ci yàlla tontu ma nee ko daa bëgg aw tur ne ma tudd ni ma nee ko lu ma def rek benn loxo mën ko di bu yàlla bi mënu ko waaw mun naa bëgg a defal ma fa nag falak folli képp ko sa aju du faju nga ñaanal bu mu fa dugg mun noonu demee rek moo tax fii kenn mu fee toog sa tas la nga bëgg amoo ko barka rajo fa kon noonu noonu ñaan rek ci barke Sëñ Fallu barke borom Tuubaa Xaadim Rasuul sama borom musal la waaw da ñaan tam ci sa sa barke maam li nga bëgg nga am moom la ma waxoon daa wax wax ne képp ku bokk ci man de ak mooy yàlla dong laay tere ak tux nee koy def doo jariñ ci man moom cer waaw waaye lu loolu rek waaw moom daa man boppam bu wér waaw saa am cer moom daa man boppam te da bokk bokk bokk waaw bokk furis ndax tey lislaam am na fu mu ci yegg boo xam ni mhm. ah li ci mu Ceerno Souleymane Baal bi mu jógee fii ba dem Fuuta waaw diggante ak naar yi dara mu ci mhm. waaw ndax njaam ngi doxoon diggante naar yi ak ak ak ak tukulóor yi moo moo moo ko dagg mhm. moo ko dindaal xam moon xeex ba duma leen waaw kon loolu nag wax dëgg yàlla day am na xam ne ku ëpp cër ci yàlla mënoo waaw mënoo waaw yal na yàlla musal la waaw li nga yéene ci islam bi lépp nga yegale ko rek ñaan ko yaram waaw noonu lay ñaan ci fallu te dana am nag fi mu mën <laughs> tam bi fi nekk itam noonu na bëgg fonk ma lool lool nga yoon defal na ma mm-hmm. fonk ma rek waaw da saan kii Cheikh Ndiaye dama am bis ma ma nekk ma nekk Mbàkke Kajoor ma dem siyaar ko toog ne Cheikh Ndiaye ñëw ñëw di ma upp ma ne ko Cheikh tooñ nga ma de yow yaa ngi upp sëñ bëgg ma upp mënu ma sëñ bee ma ko sant moom nañ la fonk kere bi may dem màkk kere bi ma tàgg tàggu sëñ bi xar bi ma sëñ bi reyan ma ma ko kuy jënd moo wax ne ma juróom-ñett fukk junni lañ ko jënd waaw mu wax seex seex mu wax seex ñaay ne ko ngeen dalal ko ñu dalal ma ci biir ndeysaan dara mànkul nag ba añ bi ñëw